Mm, salaamaaleykum euh, mbokk internet yi leen sant bu baax di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di ko tàmbalee ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi may déglu ci tey jii maanaam ci direct bi ma fas yéene def xam naa ni j'ai pas l'habitude de de faire des mais tey da ko laaj ma def ko parce que simplement suñu constat lim ñu may dafa mel ni Sénégal. ñi nga xam ne ñoom la ñu gënoon yaakaar ki ñu taxawal diine ki ñu taxawal askan bi ci yif yu am fayda ñoo commencé vraiment di génne xar kanam goo xamante ni ñun xàmmeetuñ ko bu ma xoolee tey marche bi gars yi def nee dañ ko jëmale ci homosexuel yi maanaam ci ngóor jigéen ku leen seetaan ñom ñi togon fofu organiser marche bi makoy koy démarrer ci oustad Alioune Sall ba ci ñi gëna ndaw ñi fa nekkoon ci marche bi moy mbirum nafiq mbirum nafiq mo am ci mbir mi je vais m'expliquer religieusement limay wax yëpp ma tënk ko ci alxuraan ak sunna mu leer ci bopp nit ñi ne lañ doon def tey mbiru nafiq la ak mbiru politique parce que nak man mënuma comprendre ay nit jooy dañuy xeex ngóor jigéen kim réew ñun ñëpp accord nañu ci araam di ngóor jigéen araam kooku ki sàkk amuñu ci diine atteem mooy dañ ko war a rey waaye nag wax dëgg yàlla attey ngóor jigéen moom attey njaalookat bu góor bi bu jigéen bi ñoo yem te am jëkkër wala nga am jabar yonente bi sallallahu sallam dafa ne bu ngeen fekkee góor di sëy ak góor war ngeen fekk jigéen di sëy ak jigéen seen àtte mooy comme ni ñuy góor bi am jabar di njaaloo wala jigéen bi am jabar di njaaloo loolu benn la naa ko développé ci kanam ñaareel bi mooy li tax nga war leen mën a traité de ngóor jigéen mooy nga teg bët fekk ku góor ki war ku góor ki di sëy ak moom wala nga teg bët fekk ku jigéen ki war ku jigéen ki di sëy ak moom leen lu ci am njort la may laaj ñi doon marche tey ndax ñoom mën nañu mës nañu dox Sénégal ba fekk góor bu war góor di sëy ak moom ndax mës nañu dox Sénégal ba fekk jigéen bu war jigéen di sëy ak moom am na nag comme ni njaaloo amee mais monsieur mënee su ko teg bët ni ñuy njortee ni diw njaaloo na te mënee su ko wax ci diine noonu ngay njaartee ne ay góor jigéen ñi ngi fi te mënee su ko wax ci diine ma wax ñoom Alioune Sall ne leen trop c'est trop parce que c'est pas parce que am nga sikkim bu weex yaa ngi wax ci diine rek loo wax ni ñu dañ ko war a gobe gëm ko téye ko non non may wax ni ci biir ñooñu toogoon foofu njort biñ njort Sénégal ne am na góor jigéen njort boobu lañ njort ne ñi toog ci tribune bi foofu am na. Ousmane Sonko bu fa toog ñu tuumaal ko njaaloo te mu am jabar ñu tuumaal ko sodomi au delà de njaaloo dañ nga xam ne atteem ak atte li ñuy xeex benn la parce que atte ki kii sëy ak jigéen ci demukaayu duusam mook atte ki njaaloo benn la ñetteel bi mooy yow ñoom Aliou Sall ak oustazon yi mu àndal avant ñuy xeex ngóor jigéen mais nañu xeex bokkaale góor jigéen yàlla da koy baale li may wax nag ku ko dégg day je suis en train de défendre ay góor jigéen yu demee noonu non loin de là je suis en train de reposer les principes de la religion parce que buñ ñu nax au nom de la religion ñu financer leen xaalis ñu génn def ko pour nit ñi filmer ko yóbbu ko wala ñu à la fin ñu def seen discours politique di laaj ñu doole bi nañ ko jël jox ko nit politicien lañu c'est des c'est des politiciens encagoulés commençant par Oussane Aliou Sall parce que yow. yonent saa sax dafa wax benn xadis dafa ne yàlla rëbb na góor buy jigéen jigéenlu yàlla rëbb na jigéen buy góor góorlu laana allahu al mutaannisiina min ar-rijaal wal mutarajilaat min an-nisaa kooku xadis la moom jàng na ko xam na ko yow yaa ngi ñëw toog ne da ngay marche ngóor jigéen ñi nga jàkkaar lool góor yi nga jàkkaar lool xale yu góor yi ñu bëri yére jigéen lañ sol xale yu jigéen ñi ñu bëri tubéy lañ sol ak yi yére góor la Jigen goor ñi ngi lettu senegal di tak ay long-long moy tambali goor jigen lolu bala nga bala ngay xex nga ne yow da ngay da ngay pousse état bi pour mu xex goor jigen mais yow li nga wala ñëk njëkk a def en tant que oustaz ñi nga jàkkaarloo nga wax le li ngeen nekk diiné moy jigen ñi di sol yere goor ak goor ñi di sol yere jigen jigen ñi tak lam man goor ñi tak lam ak jigen ñi di sol tuba goor yéen ñëpp la pas ne pourquoi parce que benn benn benn mbir la politique ils sont en train de se battre contre le président de la république marche bi la parce que bu fekkoon wax nañu ba lu jëm ci politique ñu jàpp ne la mais boo waxee ba nga bëgg doxaalaw sa discours politique nit ñi naan diw diw diw mbooloom di yuuxu diw diw diw dañuy jàpp ne alxuraan yëkkatiwu leen sunna yëkkatiwu leen parce que li may wax ne loolu alxuraan ak sunna wax may ñëw yonent bi saasam dafa benn xadis bu am solo mu ne ijtanibu sab'u muubiqaat moytandiku leen juróom-ñaari bàkkaar yi alagaate qaalu wa na hunna yaa rasulallah ñu laaj ko bàkkaar yooyu yan lañu bi mu si jiital mooy ashirku billah mooy bokkaale yàlla maanaam ashirku billah shirku billah mooy nga wutal yàlla moroom nga wutal yàlla moroom fekk moom moo bind an tajal lillahi niddan wa huwa xalaqa mooy nga wutal yàlla morom te fekk moo bind bàkkaar boobu yàlla du ko baale yàlla du baale bàkkaaru bokkaale képp faatu te maanaam bàyyiwoo bokkaale bo faato safara nga jëm yàlla moko wax muy wax ci alquran ne wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk la takunanna min alkhasirin yàlla dafa ne yow yonent bi sallam wax nañ la jitu ñu ngi lay wax yawit ne bu fekke bokale nga lu ndaw ak yàlla subhanahu wa taala yàlla mal ba sey jëf donc juróom-ñaari bakkar yu alagaate bokale mo si ñi tok fofu ana kan ci ñoom moo yëkkati kàddoom wax ñi ñu jàkkaar loolu ne leen nga waat ci yàlla maanaam nga waat ci nit bokkaale te mën na la yóbbu safara góor jigéen moo ko tane kii taxaw waat ci doomu aadama wëleef wëleef yàlla nga taxaw waat ci doomu aadama wëleef yàlla kii góor ki nekk góor jigéen moo la tane ci diine il faut pas ñu jël benn mbir rek jël ko ngandal ko réyal ko te xamuñu si dara musu ñoo fekk nit kuy def ñaari goor yu njaaloo bu ñu demee fekk ko ba xam ko li ñu muñal Ousmane Sonko ne carrément que ni diiné day daf ñoo wax ni manam il faut njaaloo ñent nit gis ko loolu lañu wax ci ngóor jigen diine nañu wax ni mbirum mbirum njaaloo mbirum sey pour nit mën ci taxawal nit jiiñ ko ko il faut que nga am ay firnde ay ay firnde yu leer li ngeen nangul Ousmane Sonko bëgg ko bañal góor jigéen yi naa fekk la loolu man benn benn baat la cautionné wu ma góor jigéen benn yoon ay wax day leer position sama position ci diine mooy xaraamal ngóor jigéen dans toutes ses formes mais combat laa wax combat bi jiitu li taxoon yonent bi saa salaam génne jaas ni mu déparé Badar ba fatxu Màkka ay bakkan rot baayam dee ci rakkam dee ci Jaafar ci xare la dee Hamza ci xarala la dee ñooñu ñëpp la tax ñu doon xeex. moo ñu fexe ba nit ñi gëm ni amul benn buur bu dut yàlla subhaanahu wa mais nekk dëkk boo xam ne bu ñu xëyee suba ba ngoon jot la yàlla moom yépp nangu nañ ko ci moom jox ko nit yaa ngi waaraata yor micro war koo wax waxoo boo taxawee la ngay xeex ci góor jigéen kon xamoo sa combat loolu benn la ñaar bi mooy ña taxawoon foofu organise marche bi koo ci làmb diggam fekk ci béjjën fekk ci gàllaaj fekk ci ay xaw ku ci dee safara nga jëm te góor jigéen mën na góor jigéen day tuub yàlla jéggal ko caga day tuub yàlla jéggal ko mais mais parce que Ousmane Sonko parce que bokkaale ci silsila bàkkaar maanaam loolu be loolu ñett la ñeenteel bi mooy ñaareelu bàkkaar yi alagaate bi jiit naa leen mooy bokkaale bi ci topp mooy as sixru mooy njibar yonti mooy wax man waxuma yonti moo wax ni ijtanibu maanaam in man maanaam maytandiku leen sori leen sori leen ñu ne ko la ñu sori mu ne juróom-ñaari bàkkaar yi alagaate muy lim tàmbali ci bokkaale yàlla bi mu ci teg mooy ak seexlu muy njabar Aliou Sall moom xam na ni góor jigéen xadis yonent bi sallallahu alayhi boo demee li ma lay wax ni mi ngi ci Tirmisi mi ngi ci mi ngi ci Abu Daawud ibnu taymiya leral ko bo demé dañ la wax ni goor jigen manam goor bi sey ak jigen par voie anal mom ak ki am jabar di njaalo ño yem ak ki nga xamni dem na seti maman mu wax la nga deugal lam la wax muy buxaba ak mbeunti doon dem seti set kat mu wax la nga deugal lam la wax neena ñoo ñep wedd nañ la yalla wacc won ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam donc loolu dañ ko war a wax loolu moo gën a bon góor jigéen maanaam njibat moo gën a bon góor jigéen te mi ngi fi ne xuus waxu leen ko beneen bi mooy beneen bàkkaar bi gën a bi gën a bi bi alagaate mooy lekk alalu jirim ak lu maalal yatiim lekk alalu jirim bis bu ne ñoom ñu miiraas yéen ustaas yi laa wax de ustaas yi toog foofu di marche bis bu ne ngeen miiraas lëbëj miraasu jàmbur Tak jabaru jabar bo xamni ni girim jirim yii seen bàyyi faatu na ngeen mirage fexé ba kotomu ndaw sa tak ko manam boof ci alalu jirim ba yeen ñep ñent ngeen yor ñent ngeen yor ñi seen jabar yi manam ñi ñii seen yaay yi seen papa yi gañu na ngeen ñew boof ci kër ga jël alalu jirim yep di di rafetal ay sikim manam moy nga lek alalu jirim waxo len ko ñeenteel bi moy akulu riba pari foot bang fini khus, ne xuus PMI baa boy fi ne xuus booy marché marché ci yi parce que jullit bu dee ci lii yonent bi saa sallam nee safara nga jëm parce que al muhlikaat la maanaam dafay alagaate yonent bi waxul lii ci ngóor jigéen ki ngeen suturaal teg ko foofu di ko wutal bës muy Ousmane Sonko maanaam jaasi lislaam moo bu fekkee li ñu koy waxal dëgg la bu fekkee li ñu koy waxal la te bu fekkee may ngeen ko bénéfice ci duut may la ñeneen bénéfice ci duut

comme atay kuñu japp ci ngor ngóor bu fekke ni amul amul amul amul amul manam bu fekk ñu japp ci viol bu fekke ni manam amul amul jabar dañ koy genn fam mu dëkk mo fi ne loolu leen bi saa wax wa qatlun nafs allati harama allahu illa bil haqq nga ray bakkan bo xamni yalla aramal na ci yow nga ray ko ci ngeen laq fofu tek ko fa ñu koy tuumal ni fukki xalé ak ñett de nañ senegal te ci ay loxam manam ci ci ci mom moom mom motax moo tax faatu waxoo leen ko ko après oustaz oustaz Alioune Sarr taxaw yëkkati ñaar loxo yi mel ni ko am ndam mel ni yow yàlla yow la yónni mel ni yow yàlla yow la dénk alxuraan bi mel ni yow yàlla yow la dénk sunna bi ngeen xam diine boof si ngeen xam dëgg boof si bis bu ne ngeen dégg bis bu ne ngeen dégg Sénégal gi ñu nekk yàlla yonent bi saa salaam wax ni moom mooy xaatimu nabiyiin wa imaamul mursaliin moy ki mujj moy ki tëj bis bu ne ngeen dégg fu ñu ne diw sallallahu alayhi wasallam mosu leen marché wax ko pourtant moo gën a garaaw ngóor jigéen parce que takfir la ma maanaam parce que murtat la ku ko def mooy kéeféer nga def ku ko def mooy génn nga ci diine te ngóor jigéen génnewul nit diine déedéet bàkkaar la bu mag ku ci dee yàlla mën na la mbugal bu la yërëmut mais bokkaale moom ku ci dee yàlla loolu bàkkaar boobu rek la wax ni ku ci dee maanaam safara nga jëm muy bokkaale mi ngi ne xuus ci dëkk bi mi ngi tàmbali ci yéen ñooñu toog foofu laa Iisaa ibnu Maryam waxoon rek ba ñu waree lapide ndaw si mu ne ku mësta di ku mësta mooy nu njëkk sànni xeer yéen ñi toogoon foofu ñëpp ay ustaas yu tuub ngeen rek maanaam da ngeen tuub maanaam tuub gi mooy nekkoon ngeen seen yëfi ndaw ba yàlla jékki-jékki war leen leer zaalika kuntum min qablu fa manna Allahu aleykum yàlla nee na donc nii ngeen meloon bu njëkk yàlla dimbali leen bu fekkoon ne aaya yàlla bi yàlla wax ni njaalookat bu góor bi ak njaalookat bu jigéen bi appliqué nañ ko Sénégal day gis ñoo xam ne cinq millions de coups la ñuy am ña nga foofu toog ne dañuy marche ña ñëwoon marche pour góor jigéen ñi ña ngay mooy yàlla di njaaloo bis bu ne góor dugal jigéen ci biir néegam sëy ak moom takk ko ñooy am atte ñooy am atte islam booy àtte àtte ñëpp ñu tolloo mais bul àtte àtte politicien oustaz Sall oustaz Alioune Sall il est devenu un oustaz politico-religieux maanaam mooy oustaz boo xam ni day commencé commencé na dugg ci mbirum politique dëggantaan njaay bëgg ko wéer na ci diine boobu du dem parce que ñun dof nañu bépp xeet dof amaana ngeen jàppee ñu ko ñun mais nag yeewu nañ quand même li ma bëgg a wax foofu mooy Sénégal. président Macky Sall da cee wax lu leer ci mbirum góor jigéen kilifa àdduna bi taxaw ñëpp taxaw mu am fitu wax ne carrément Sénégal moom fekk mi fekk mi ngi fekk mi ngi nekk njiitu Sénégal góor jigéen lu ñu ko fa daganal lu jar daw bay daanu ak lan lañ bëgg Macky président la junnitu medd li ngeen mën a wax yéen ak di ko dox moom maanaam li ngeen mën a wax yéen am sañ-sañu wax ko ak sañ-sañu def ko président Macky Sall du ko def parce que lamuy wax ça anga tous les sénégalais lamuy wax ça anga l'avenir de toute une nation donc limuy wax da koy xool bu baakha a baax li def da koy xool bu baakha a baax mais yeen sen combat yeen a fossé parce que kenn ku ne ci yeen ñooñu tok fofu nonu ne da ngeen marché nonu ba tok fofu nonu ne da ngeen wut mbolo bu ngeen jox nit ku ci yewu sa dom romb la buntu këram góor góor la góor tak jaaro wala mu leud bopp bi wala mu tak lam da ngay gis sax sëriñ bo xamanteni tak na ñent jaaro mom tak xénam def ci ben genre ben genre àll yooyu lu kenn xamul yeen bi saa da ko aramal ci góoru xétam lolu muta anni ànd min rijal ngay bok manam moy yi jigen jigen lu te lolu ngay war a wax parce lolu moy mooy gudd mooy jur góor jigen mësoo gis Oustaz Aliou Sall wala ñimu andal. ku la wax ne mës naa dox ba gis jaxaran góor bu tiim moromu góoram di sëy ak moom kenn ci ñoom mësula wax ne mës naa dox ba tiim jaxaran jigéen ak jigéen buy sëy nii ñaar nit nag yu dem dugg seen biir néeg def seen bàkkaar comme yéen ñëpp ni ngeen koy defee manam moy xale bu goor bi dem japp xale bu jigen takko ko ci farata yalla manam takko ko ci farata yalla takko ko sunu muhammad sallallahu alaihi wasallam dem dugu sen birne neek teju njaalo ba ba ba doyal genn dem yalla suturaal len ay way way way way nge wara mon mën ñene ñi nonu mais nit wala tajassasu bu len di lunjante ay ay mbir parce que ku ñu fi sey mbir rek gis lo xamanteni say da nga doon nëbb sénégalais yi xam ci yow Sénégal nag moo mel noo xam ne diine gi dafa désordonné kenn xamul ku war a wax kenn xamul loo war a wax kenn xamul ci la ngay sukkandiku pour wax li nga war a wax encore une fois may leeral ñi may déglu ñëpp ni tooguma fi pour pour daganal góor jigéen je suis pas pour ça. góor jigéen dama koy rep je répète atem moy yon bi saa ak li borom xam-xam yi wax moy fi geuna kawé ci tabax yi nañ dem taxaw fofu sepp ko manam ñu sanni ko mu daanu suuf la tête en bas comme ni yalla waxé ni kat bu góor manam ku am jabar wala nga am jëkkeur nga njaaloo dañ la war lapider ginnaaw ba nag yi yeena demone ci antenne yépp ne Ousmane Sonko dañ koy def bénéfice di doute parce que manam nit mënul tek bëtam Ousmane Sonko dañ ko jiñ njaaloo te mu am jabar au delà de njaaloo dañ ko jiñ sodomi ngeen may ko bénéfice di doute parce que tegoo leen seen bët ne ngeen mosu leen tek seen bët ci ñi ngeen ne da ngeen leen ni xex te mbolo mi ngeen jàkkaar loolu am na ño ñoo ñom ak ñoo yam yem àtte mooy ñi nga xamni ni ñi ngi ci mbolo ma dañuy iri di dóor comme ñe amaana ñee dañu dañ leen dañ leen jël rek maanaam jël leen classifier leen comme quoi ay yéeféer la ñu ay nangam sangam njaaloo njaaloo la ngóor jigéen ngóor jigéen la ñoom ñaar ñooy am àtte ñaar ñooy am kii dañ koy rey kii dañ koy rey amaana rey ñooy wute des fois rek mais njaalookat bu jig maanaam kii def sodomi nekk nekk góor jigéen dañ ko war a rey comme njaalookat bu góor bi ki am jabar bi njaaloo dañ ko war a rey c'est la chose mënoo jël ñii favoriser leen ci kaw ñële Oustaz Aliou Sall mën na waat ni ñi mu jàkkaarloon mbooloo bi mu jàkkaarloon tey ñu taxaw di wax foofu noonu ah, nit ñi mën nañu waat ni mësuñoo mësuñoo iri kuñ takkul dóor mësuñu koo def tey la sëy gën a bon xale yi nit ñuy sëyee lu ne la def lu ne lañuy def fu ñu ko jële mu góor jigéen ñooyam parce que même góor bu tiim jigéen jël awraam def ko ci demukaayu duusam ci ku jigéen bi yàgg atte yi atte njaaloo yéen a yem donc man loolu laa bëggoon leeral ci mbir ma si tey may wax nañ bàyyi président Macky Sall nañ bàyyi nguur gi échec bu amee échec bu amee ci ay valeur yéen nitu diine yi la du du Macky Sall yéen oustaz yi la ak oustazon yooyu noonu taxaw foofu noonu di politique xam nga ni ngeen di politiquer ngeen ñëw créer seen mbir bopp woo ki ngeen bëgg woo di schéma mais yéen a gën a xam ni dëkk bii Sénégal gii mooy gi fi nekk moo ëpp fuuf ñu war ko taxaw xeex ko parce que benn mbir moo taxaw yoon bi xeex di génn jaas di rayante mooy laa ilaha illa allah mooy tawxiid te amatul Sénégal Sénégal gii moom tawxiid dafay ràpp dee na fi mooy nit ki gëm ne yàlla kenn la jeex na fi yéen ñëpp teg ngeen seen bët nii nit ñi waatuñ ci yàlla te yonent bi dafa ne iza kaana xaali iza kaana xaalifan fal yaxlif billahi aw li yasmut bu nit ki di waat na waat ci yàlla wala mu noppi beneen bi mooy bu sooba yàlla ak diw yonent bi saasam nit ki ñëw di ko tàggu mu ne ko ajaaltani lillaahi do waaj ko ne macha insha allah macha allah wa shita bu neexee yàlla ak yow mu ne ko ndax danga may def moromu yàlla macha allah waxdahu bu neexee yàlla moom kott yonent bi saa sallam nee na xaw maanaam béjjën maanaam yax maanaam galaj lépp takku ci diine bokkaale la te ba muy lim bàkkaar yi gën a mag ngóor jigéen ni ma lay wax nii juróom-ñaari bàkkaar yi alagaate bàkkaaru góor jigéen newu ci njaaloo newu ci parce que loolu ay bàkkaar yoo xam nit ku nekk mën na ci tàbbi njuumte ñii mën nañ nekk xale ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jël leen def leen ko ñu dem ba màggaaleeg moom nit ñi amuñ ci ñoom seetlu ñu kon ne noonu ñii mbon moo leen ci dugal ñii bëgg xaalis moo leen ci dugal comme ni ay mag yu nekk seen biir yéen amee ay jabar dem ci ay jacuzzi jacuzzi di seeg ay jigen ci demu kay dous tok ne fagam ngeen xex benen kurel lol la wax ni de la part de Aliou Sall ak ñiko wër yefu nafiq la te lol il faut sénégalais yépp xam ko ta man man mom dina ko xex no ma ak fi sama doole yam parce que diiné ngeen wax dañ ko jéem essayer suñu man ñun suñu dégg-dégg diiné ñun lim ñu may dañ ko jéem wax ba ñëpp dégg dañuy commencé direct bi ab dañ dem plateau buñ ñu dem dañ fa dem dañ ko wax que ni bi né Sénégal njibar gi nek Senegal, lek alu jirim ji Senegal, sénégal carte gi gi nek senegal la moo tax du ngeen xex pays mi jógee senegal ak paris foot akul riba ci jom ñaari bakari alagata la bok yoon bi saa sal wax wa akul riba lek bak lek riba carte riba la xexu len ko yéen xexu len bokkaale bi nga xam yalla duko balé nga taxaw nga ba oustaz aliou sall mom mom mom moomu xam ne bis bu ne mu deg senegal nit ki wax ni bu soba yalla ak diw nit ki wat ci kudul yalla nit ki jeul yefu yalla jox ko nit so taxaw ci ci manam say warata yow nga wax ko te xex bobu mo gën mo moo gën parce que mo taxoon yéen bi sallam di xex ak kéeféer gi di di di rayate mo taxoon yéen bi sallam di jeul jasi di rayate muy bokalé du góor jigen du ngor jigen ngor jigéen borom xam dañ ciy ubbi comme ni ñuy ubbee ci ki bàyyi julli ngeen jàkkaarloog ay jeunes yoo xam ne ñi ciy julli bëriwuñ ñi fa ñëw ñëpp buñ demoon jàkk du fees ñi génnoon di marche góor jigéen dañ leen war a woo ci diine ñu bëri parce que ñu bëri ñii duñ julli ñii duñ woor ñii ñi ci kàtt gi ñii ñi ci njaaloo gi ñii ñi ngi ji bëgg jël benn xeetu jullit si ngaliko man loolu laa mënul d' accord bu ñuy xeex ci diine dañuy xeex lépp ñu xam ne yéen ñii ay nit diine ngeen xeet lépp mooy hey saa yi kilifa diine yëpp dañuy waxante dëgg wàcc lu dul yàlla bàkkaar la bokkaale la yaakaar lu dul yàlla bokkaale la bu ngeen amee fitu wax ko rek ñu bàyyi leen ngeen am fitu dox ci góor jigéen ñi parce que bàkkaaru bokkaale moom mooy bàkkaar bi dugal ni safara moom yàlla ko wax yeneen bàkkaar yoo fi gis yëpp yàlla dafa ne wa qul li ibaadiya allazina asrafu ala anfusihim laa tax na min rahmatillah waxal sama jaam yi nga xamni dem nañ ba yaqi ci yéen yalla ngeen baama nak ma ngi ñak parce que taluma ventido awma ab ci bob su may wax ba tang duma tal taal waxal sama jaam yi nga xamni dem nañ ba yaqi ci yéen yalla yaakar yàlla sax yalla jéggal na leen wax leen ne inna allaha yaghfiru dhunuba jamian man la ko digeen ñep no la wax taga jëm lo la wax ñu bon ñep ne leen dina jéggal ñep comme ni mu jéggalé ñi di marché ni ancien boy town yi nek imam yëpp ancien boy town yi nek ay oustaz yep yalla dina djegal yalla dako wax zalika kuntum min qabl fa manna allahu aleykum waaw ni ngeen melone bu ñeuk yalla dimbali len ñun ñëpp non lañ melone yalla dimbali ñu ndimbalu yalla mo ci nek inna allaha yaxfiru zunuba jamian yalla bakkar yep lay bokka balé bam dess bokalé kaba'ir yi bokalé mo ci jitu moy febru senegal senegal dama yalla mo dul taw équipe nationale dem di football sax bu dougalé bi attaquant mu moomatu ko feebar boobu xeet bi febar ngeen bag ko fii ne da ngeen xex ay détail détail détail la ci diiné détail détail waxuma ne baax la dé déedéet mais fondement diiné tawhid la fondement diiné tawhid la boy toup dañ lay wax nga wax ashhadu an la ilaha illa allah moy amul benn bour bu dul yalla boy toup lolou lañ lay sante mais santuñu la ngay wax lenen kuy tuub dugg ci diine loolu la ñuy njëkk sant mais yow làq doom dóor doom ngew yaa ngi làq koo xam ne nee nga yow doo ko wax ci moom dara parce que fekkee woo fu muy fu muy fu muy fu muy fu muy fu muy siifee aji saar fekkee woo fu muy dugg ak moom ci jacuzzi bi nangu naa ko diine la nangu naa loolu mais est ce que fekk mën nga mën nga dox ba gis Sénégal benn góor ak góor ñuy sëy mën ngeen dox ba gis ko yéen dëgg ciy dégg rek yàlla nag dafa ne bu kasira kasira mina zan inna baada zan ismun manam met ndigu len lu beuri ci njort parce que njort yu beuri bakkar la njort rek mo ci am limay wax ni moy nit meun na jog sol yere jigen sol yere waxuma la sol yere jigen sol marinière war du sërëm imam ba ne ci pénc amul sañ-sañu atté ko atté goor jigen parce que gis ko mu koy def waye am nañ sañ-sañ ko keur yi nak parce que day jigen jigen lu comme ni nga xamni góor jigéen bu sol tubéy pantalon sol chemise ci ñun suñu aada ñun wala nga sol sabadoor bi nga sol nii maanaam yaa ngi góor góorlu yónni bi loolu la njëkk wax laana allahu al mutaannisiina min ar-rijaal wal mutarajjilaat min an-nisaa fa la njëkkee njëkkeewul ci góor jigéen yàlla rëbb na góor bi jigéen jigéenlu ak jigéen bii góor góorlu ñeen ñooñu ngeen jàkkaarloon tey ay ay jigéen yu sol tubéy ak ay góor yoo xamante ni ñi dañoo léttu ñi sol ay long-long ñi takk ay lam ñi takk ay chaîne ñooñu si ba waaraate bi ci ñooñu la a njëkkee ba pare bu du ngeen ay naafeeq boobaa nag après ngeen door a jëm nag ci nga xam ne def na acte bi ki nga xam ne ñëw na jël moromu góoram sëy ak moom man ma fekkee woowu ma keneen keneen ki ñëw fekkee woowul keneen keneen ki ñëw comme ni ngeen ko nangulee Ousmane Sonko ca suite booti noonu nga war a nangulee ñii parce que kii àtte xaadi bi àtte balaa muy àtte góor jigéen même ñu fekk ko foofu day am iqaamatul xujja day taxawal lay dañ ko taxaw ne yow kat diw nee na dala fekk nga nekk ci kaw góor di séeg moom ka ngay góor ni moom ndax xam nga li ci diina wax ndax mën ngaa waat keneen ki ñëw ne man de gis naa ko fekk yow xamante woo keneen ki ñëw wax ko keneen ki ñëw wax ko boobaa nag bu tàbbee xaadi bi jël àtte mu àtte mais yow fekke wo yego tino am sa ndior trek ben imam taxaw fee ne non ah, kayit bi ñuy kayit bi légalisé goor jigéen mi ci table mak Sall yi ñëpp ngeen fakk commencé lu la leer nga wax lu la leer nga wax te ngeen di diine ngeen di wax ñu xam di dëgg loolu ñaar la benen mayo oustad yi moy yeen ñëpp ci l'islam ngeen teddee manam moy yalla yalla mom dessalu len dara parce que yeen ñëpp kenn xamu ci won kenn ari le tout ci ginnaw commencé ci oustad Aliou Sall mom diine motax ñu xam ko yalla na guddal fanam c'est vrai mais lan la defal diine à part jàngale c'est vrai mais farlu bi nga am ni taxawal goor digeen wax deug yalla war ko mën am taxaw farlu Sénégal ne leen ki mujju ci yoonte bi alayhi wasallam Muhammad la tuddu wote wo yoonte ci ginnaawam bàkkaar la deug ngeen fi barki Dembo njaay waji def kaba am fele Kolda kan mo ci marche deug ngeen barki Dembo njaay nit ku taxaw wax ci yunus sallam ñaari saaba ngi ni taxaw ci ben xare tour bi amana dina ñew bala may pare direct bi ñu taxaw ni ci ben xare ñu tok campé ñaar ñi di jëw ay saaba naan xolal ñi ak seen biiru reuy rek buñu démé xare ni ah manam ñom ñoy ndëkk am ay yambar lañ amuñu fa njëriñ di wax di jëw yalla ñew na yunus sallam jitu salaam leen fa ne ko diw ak diw bu ñëri tuub manam bu leen jéggal parce que manam wax nañ nangam ak nangam bis ni ko tey génn naa leen ci diine Sénégal moom loolu moom moom fii la fekk baax ñun Sénégal actuellement ba ngay xëy suba nit ki xëy suba ba ngoon jot nekk si daru Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall comploté kii comploté na kee comploté kii comploté na kee Macky Sall Macky Sall moom dafay légaliser góor jigéen te li ngeen wax dara du ci dëgg maa ko waat fii ne yéen ñi taxaw foofu di marche kenn gënul nekk jullit président Macky Sall amul kenn. ci yéen gënul nekk jullit président Macky Sall kenn ci yéen gënul am taxawaay que président Macky Sall ci l'islam bii parce que il jël été président Sénégal bu oose taxaw wax ni fépp maa ngi nekk président góor jigéen duñ ko fi daganal waaye nag islam sax yéen li ngeen bëgg Macky Sall def ko islam santu leen ko yéen. ñaari nit yu ne ci seen biir néeg di def di mooy seen mooy di mooy yàlla yéen ñi ngeen jàkkaarloo tey ñu ne dañuy marche pour góor jigéen ñi ngi tëjoo jigéen bis bu ne seen biir néeg di di dóorante te wax te xam gisoo leen ko seen diggante la ak ku jigéen ak yàlla yàlla suturaal leen ñu pare dem seen yoon sénégal gi buñ doon buñ doon natt sénégal gi buñ doon natt maanaam ñii mooy ñii xëy di mooy booy naan lëwal ñi ngi mooy booy naan deuxième ñi ngi mooy booy dox ñi ngi mooy booy wax ñi ngi mooy sénégal ñëppay mooy moo tax sànq ma ne coup yi moom bu ñu ko doon dóor foofu noonu foofu fi ngeen doon marché tay buñu ñu ku njaaloo rek ñu dóor témer yar wallahi kon fofu ñi fay wacc daw ak ñoo bari yalla mo sural, sural nit ñi ak ngeen di def combat diiné yi norm combat normal ngeen bayyi politique bi wala ngeen summi sen sen seen ngeen summi sen sen sen muuraay sen manteau religieux ngeen tak sen manteau politique ñu xam da ngeen politique ñu mën leen tontu ci cadre politique mais balé won alcorane bi ngeen di jël diko muro parce que li ngeen def alcorane santu leen ko li ngeen def ni alcorane santu leen ko alcorane bi leen sante moy ngeen fexé ba julli ñi gëm na yalla kenn la ba paré ak tawxiid mooy nit ñi gëm na yalla ci uluhiyam ci ubudiyam ak ci asmaullahi wa sifaatuhu ci yalla kenn la mom rek lañ wara jaam ci yalla kenn manam ci kennam ka yalla kenn la qul huwa allahu ahad mom kott yalla moram lañ ko def yalla moram la fum tan ni senegal gi parce que bu fekke ne yalla mom mumutul taw yalla mumutul bakken doomu aadama yalla mumutul se doxalinu mbir yi yalla mumutul nawet yalla mumutul noor yalla mumutul tadbirul umur ana yalla xex boobu mo wara jitu ba ñepp xamle yalla kenn la kot mom kot ñu jaamu ko mooy daw ñu gëm ni ñun ay jaam lañ dañu ya Allah. jaamu yalla buñ ci paré nak maintenant ñu gëm yalla ci turam yëg melokaanam yi ben la ñaareel bu moy yeen ay at a ngi nii vous êtes incapable d'unir l'islam autour de ben weer weer weer weer yéen vous êtes incapable ngeen dajale jullit ñi ñu wor ben fan warando ben fan woor ba won te beskendo vous en êtes incapable ñaar ñetteel bi moy lu ngeen di jiiñ Macky Sall lan la yéen yaru leen seeni dox ñi tok fofu ñaata seeni jabar ñoy ñoy lettu mees di def bopp neen dafa xaraam mané bala ngay diglé sangu day fekk nga sangu ba pare balaa ngeen xex ko digeen di ngeen melni saaba yu njëkk ya di ngeen ni melni ni alayhi wasallam melni saaba yu njëkk ya teggu seen yoon ñoom clean ba pay do taxaw jóg da ngeen di jakarlo keneen parce que li bon ci diiné moy at taamuruuna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum al kitab, afala ta'qilun ndax di ngeen digal nit ñi lu baax ba pare ak ta'muruna nasa bil birri ngeen di wara a nit ñi lu baax yéen wa tansawna anfusakum ngeen fàtte seen bop wa antum tatluna alkitab fi ngeen am xam-xam yeen yeen li ngeen wara xex xex walen ko moy yeen seen jabar yi ñeppay def bop neen yeen ñi tok ci gi ngay gis oustaa bu tok fofu jël ci kimbi wat bam set teen sa sa neena won woon chaaru goor ci si kim la suñu mag ñu jitu ñi mosoo si gis ku wat si ki moom amul xam nañu taxoon ñu yar ko yéen koo ci gis oustaz boo ci gis mu nga jël loxo yi lox mel ni loxo jànq bu dof liggéeyu leen joru leen yàttu leen li ngeen di mooy ah yéen bi dawloon na bëtt ba waxloon na garab yi eh, gaa yi joxe leen 1000 francs 2000 francs ngeen ne fi loolu ngeen dundee. fàtte taxawal cislaayu lislaam maanaam mooy taxawal ah, aqida dëggantaan yaay nit ñi am pas-pas len neex dal moy yeen dal yeen dibi doxloon na battement waxloon na barba doxloon na nangam xarna wer ba ñaar de yonent bi yëg na asamaan gars yi jox len 10000 francs 5000 francs quinze francs ngeen jël dem tak ay jabar i tek di doole diine gi fekk na yeen ñi ngeen ni formé ay atangi ni ñi ngeen ni formé yeen ay atangi ni jangal len jàngal ndax dar yeek ay asmaaw yoog ibnu asir ak fu ne ngeen taxafo waxtaan ak def tafsir ak nangam sangam fofu la bokkaale gëna wulé ñaay fofu la triant gëna wulé ñaay ko ci wóolu mu wuruj la Fofu la nafiq gëna wulé wulee ñaay ci mim réew yeen xéxal leen leen la taxaw di xéx góor digeen c'est mettre les avant les bœufs ci us ni ma wax na oustad Aliou Sall la waxal ak gangoram gogu taxawon tay xaw place du souvenir xaw moy mooy ni diine da leen sant yeen ngeen defaru ba noppi do defar ñeneen suñu magi fi jitu won day taxawal fondement diiné yi Sénégal gi ñom defar dañu defaru ba noppi do defar ñeneen ci ñu ak sax ku leen xool jàkkaarloo ñoom xam ne ñii ñii wax dëgg yàlla nag ay nitu yàlla mais yéen yéen liggéeyul leen dara diine à part animé ay conférence ak ay jàng ju leen di fay loolu ngeen fi nekkee loolu rek ngeen fi nekkee maanaam animé conférence animé débat diine yoo xamante amul benn importance conférence ci diine moom troisième plan la wala quatrième plan jàng moo jiitu mais tey li ngeen li ngeen nekkee moo gën a bon fuuf que ni ngeen nekkee ñun ñoo yem. ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp laa wax ñun ñëpp feebar ci diine amaana da ngeen yeb góor jigéen ñi rek wala ngeen bëgg layal benn mbir rek nekk ci mais wax dëgg yàlla nag moom euh, góor jigéen moom boo ko boo ko bëggee xeex dinga xeex di nga xeex di nga xeex njaaloo euh, avant dernier point bi mooy man li ma jaaxal mooy Ousmane Sonko bi ma gis mu toog ci mbooloo mi euh, yow. dañu laa jiiñ ne la dangaa njaaloo ah ñun de wax dëgg yàlla ñu déggal tamit ustaas yi ni fekkewu ma man boog personnellement fekkewu ma diina laay wax newu ma ci cadre politique fekkewu ma yëguma tinuma xaw ma si dara ñu wax na ne ci biir tuuma gi it daawoo sëyeeg ndaw si sax nag ci voie voie vaginale mais voie anale yow ñu la tuumaa war laa atte atteeguñ la sa mbir mi ci loxo xaadi bi ñu war a xool Fata gi bi ngeen di bañ moy leral bi nga xamni yeen yeen oustad Aliou Sall da ngeen incapable ba manam atte bobu dañ ci fata bayanu mom juge be ko fata bayanu moy leerlu gi juge be ko mom juge bi dana leerlu par force ginaaw ba nak yow Ousmane Sonko lolou la nga tuumaal ya ko digge am atte bu fekke ya ko def ba ya ya ko def mom mom mom moy moy dañu war lapider kon jaas lislaam mi ngi tim man na xoma na nit di nekké tek sa bop ci guillotine ngay xex keneen ki nga xamanteni mom amana sax euh, manam momit yeen yéen yam gor bi am jabar jabaram sa jabar sax yaw nga sodomisé ko até góor digeen nga am waxuma la nak ko xam dañ la dañ da nga am ñaari jabar bàyyi ko fa dem ci bërëb bo xamni ñepp xam nañ dem nga fa ñëpp xam nañ ne xam nga ndaw si ñëpp xam nañ ni maanaam yegg nga fa fajoo nga fa dugg nga ci si ñëpp xam nañ ko li ñu leeru nag moom mooy ndax ndax maanaam ndax sëy nga wala sëyoo waaye nag wax dëgg yàlla ndaw si dem ba décrire décrire awra ya na mel kooku mënees na ko jox sax au moins crédit waaye Sénégal ma na mu fi gisagul koo xam bett nañ ko ci kaw lal góor ak góor ñuy sëy bu amee ci ay image la am. bu amé ci image nak atte dal sen kaw waye man pour ma wax deug yalla kuy xex go digeen dang ko wara bolé ak kuy kat ba waxuma la na yow lay xexato ndialo nga takku ci bir nak digu wutal mbolo nan mbolo mi lañ lay jox pour nga am doole pour dem tala sa ñaar loxo rek Oustaz Aliou Sall melni ni Ronaldo dugal bi yi nga dee réew mii fekk demuñu ba xamni ki yalla jox xam-xam da ko denk rek mais jam la ki yalla jox xam ali Sall yalla da ko jox xam-xam ñu nangu ko baax a baax a baax mais jaam la rek dafay yokk ci diine day wàññi ci diine dafay juum te bii daa juum bii dafa juum parce que li war a njëkk gën a leer ci àdduna mooy ñu fexe ba ñu gëm ni bokkaale mooy bàkkaar boo xam ne yàlla du ko jégale góor jigéen yàlla mën na ko jégale jégal est-ce que tey góor jigéen bu dee tey tey tey duñ ko duñ ko jullee dañ koy jullee par force bu nexé ni dañu né duñ ko sul suñu armée waaye nak il faut mo am ñuko sul bu ko kenn sulul bakkar la dañ ko sank dañ ko sul bu kenn sulul bakkar la ba que bi bu sàccee ba xamné xam la sa way bu démé bu dé duñ ko sul dañ koy sul go bakkar la comme ni sàcc nekkee bakkar comme ni truand nekkee bakkar comme ni bakkar comme ni banditisme agression yi ngeen gis ngeen yëpp parce que les ngeen ne pour ngeen pour ngeen le président Macky Sall rek il faut ngeen jàpp affaire pour pour nit ñi non Macky Sall est loin te li ngeen Macky Sall seen dom ci ci ci marche bi seen dom gën te président Macky Sall mais nak boy, boyal gi ak di wax rek di wax rek di wax te loolu naa ci interpellé wax dëgg yàlla nag juge bi yor cas bi ak président Macky Sall bu fekkee da ngeen ragal ngeen yemale fi dossier bi bu fekkee ñemewu leen ngeen yemale fi dossier bi nit ñi xam ne yemale ngeen ko fi mais takk leen seen fit ngeen atte ngeen jox Adji Sarr justice wala ngeen jox Ousmane Ousmane Sonko justice mais Adji Sarr mérite un procès wax na nit ñi wax nañu yàq nañ jaram elle mérite un procès. bàkkaar beneen bi gën a rëy ci bàkkaar yi mooy te maa ngi ko doon lim juróom-ñaari bàkkaar yi alagaate xasful muxsanaatil xaafilaatil mu'minaat maanaam ngay xas jigéen boo xam ni dafa baax dafa yiw dafa tedd ñun de aji mi ñu xam ba mu génnee critères yooyu lañ jox muur na yaram ba wax na teey ànd ak dal ànd ak teey yàq daram bokk na si juróom-ñaari bàkkaar yi alagaate waxoo leen ci moo tax ma ne mbir yi ngeen def mbiru naafeq la waxuleen benn yoon ci moom jël ngeen ko sànni ko mel na ñu amul ay doom yu jigéen jël ko maanaam yàq daram jël ko minimiser ko yàlla nee na walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an laa taadilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa lo bañ bañ Macky Sall lo bañ bañ Adji Sarr lo bañ bañ Ousmane Sonko war nga mëna xamni yalla neena wala jirmanakum na qawmin jirmannakum shanaanu sa noonoo ak xet sa bañal ak xet sa différent ak xet bum la téré mukk ala allah taadilu nga wara nga nga bañ am and ak justice ta'dilu jubal len, tolo len, équilibre len huwa aqrab li taqwa mo gëna jé jege ragal yàlla oustaz oustaz Alioune Sall xamna ko mais vous avez jeté en pâture Adji Sarr oustaz yeb ku ci wax nan wa wa yalla dafa ne in jaakum fasikhun bi nabayin fatabayyanu nangam sangam dine mom il faut ñent ñu am ñent ñu ñent ñu ñent sédé nangam sangam ak tapalé tapalé manam atté bo xamni politique da ko wax mais wax deug yalla yalla wax ci li ngeen deugal ci Ousmane Sonko loolu la wax ci góor jigéen yi ni wax ni parce que kenn ci yeen meuna wax ni kenn ci yeen bu nekké nak ay diine ngeen bu nekké du ngeen dox goudi parce que góor jigéen guddi la dox ak ay heure de crime guddi lañuy dox ak heure de crime bu nekké nak yeen yeen dox heure mën ngeen leen gis mais man de wax deug yalla man ba jaxata man wax deug yalla duma gis goor digeen parce que awma jot bi duma ko gis parce que duma dox guddi ba xoy bay dajak ñom mais nak bu nekké ni nit ki dem na jël jël ñaari goor ñaari goor yu nekk seen biir néeg teju seen biir di moy yalla seen biir nekk ay goor digeen seen biir lu parce que suñu su naa comme yaw mi xalé bu góor bi fexé ba xam mati job mële dem fexé ba doxan ko mu nangu nga japp ci loxom dem duggu sa biir neeg li ngeen di wax iri tej neeg bi fu meeku mu meeku ngeen njaaloo yalla sulaal leen waaw wax deug yalla c'est la même chose ni yàlla sulaalee kay njaaloo noonu yàlla sulaalee góor jigen bi nañ leen wax ñom ñepp ni len li ngeen nek baaxul nañ ngeen am fitu wax aussi ñi and ak yeen ni len jigen ñi sol jean di sol pantalon di sol chemise ak yooyu noonu la ngeen nek tamit baxul ñom ñu xam ko parce que yonent bi da koo wax man koy répéter di ko répété la ana allahul mutaannisina min rijal wal mutarajilat min nisa yalla yalla yonent bi dafa ne yalla rëbb na bu jigen jigen lu ak jigéen goor góor góorlu génnal leen seen kër yi wallahi bu ko doxalon seen kër yi seen kër yi yeen nit du fa taxawal parce que yeen ñepp seen doobe dañuy mesu dañuy def bop neen dañuy sol tubey di di ko dangal di dox ci mbedd mi dox nu mu leen nexé waxo leen ko ragal leen yàlla fa la tambale loolu yindibe ko hadith xadis la yoolu hadith bu wer peng la ni yindibe sa sam waxe tamit ni góor jigéen maanaam atteem mooy ñu jéeg fi gëna kawé ci dëkk ba ñu sanni la teg amba ni yindibe sa sam waxe tamit ne di yàlla subhaanahu wa taala yindibe sa sam waxe tamit ne ku am ja ku am jëkkër wala nga am jabal ndialo téwé manam amul téwé yalla dañu wara ray ngen ngen ngen fat dom ko xam dañ ko ko tuumaan ngeen teg ko ci pénc ma nak tek ko ci tante ba nako yow mom dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay jox bénéfice ci tout yow mom manam defo dara aji saar nag moo tax may wax président Macky Sall nako diko wax juge yi ne leen mbir mi bu fekke ñom dañoo ragal bu fekke dañoo ragal way way way nañ jox dossier bi bitim rew ñu atté fa que dañu war a atte dégg légui Barthélémy Dia ci ben émission bu mi wax mu taxaw man moom sax bëgguma ci woon sori parce que Barthélemy moom ay waxam jarta dóor xale xam nga nit ku réew moom joxul njiitu réew ñetu maanaam joxul njiitu réew cër maanaam da nga koy bàyyi rek mooy maanaam tey Sénégal nit ki dafay tëdd ba heure bu ko neexee mu yeewu amul lu mu def xam ne njiitu réew mi mi ngi fi toog am na maanaam benn politique bu mu bëgg doxal amul nu mu ko war a mën a jaare jël politique bi maanaam jël diine gi jël ñetti aaya jël ñetti xadis dajala ay nit au nom de la religion parce que man ñi daje woon foofu ñu bëri peut-être au nom de la religion lañ génnee mais au nom de la religion dañ leen jàngal ni xeex bi njëkk ci xeex yi mooy huwa allahu ahad yàlla kenn la te da ngeen cee échoué commencé ci Oustaz Aliou Sall ba ci ñu mujj ngeen fexe ba réew mii réew mii ngeen fexe ba jël ci carte da ngeen cee échoué tay tay carte gi la fortune aux souscripteurs les bénéfices à la nation moy peuple bi ñi ngi lekk ñu peuple bi ñi ngi ñi ngi lekk ñi ngi ñu lekk riba manam euh, état mi ngi lekk riba yéen ñëpp yéen ko nopi noppi noonu yéen ñi doon marché non ko ci lamb ndiggam ay bëjjën ma ngi ci ay parce que yéen yéen yéen yéen yéen njëkk ñàkk gëm yàlla yéen parce que même pour nek ilimaanu jàkk sax deen ci rayante même pour nek ilimaanu jàkk jaral na leen ngeen liggéey yéen te rayante pourquoi pas que saraxu jàkk yeegi demee noonu jaral leen yeen ngeen rayante tey ngeen bëgg ñëw fi di taxaw di affaire góor jigéen yeen lañu wara a wo ci diiné yeen yeen oustad yeen parce que leen yalla benn yoon sama baat ca kaw parce que diiné bu feebaree yeen la parce que mbon gi mbon gi mbon gi nekk ci réew mi xam ngeen ko ñemewu leen ko wax parce que vous servez vos intérêts njaaloo bi nekk ci réew mi xam ngeen ko nangu leen ko wax fen gi nekk ci réew mi xam ngeen ko nangu leen ko wax seppi benn mbir rek parce que jàpp ngeen ni moom mooy tax Arabie Saoudite yu deme noonu jox leen xaalis ngeen bëgg fi tekk di sonal nit yi di tempaniser nit yi jàpp président Macky Sall jox leen ko cër ku jóg di wax ku jóg di wax ku jóg di wax ñun Macky Sall lañu am gënoon leen ñu gëm yàlla gënoon leen ñu xam diine dàqoo leen ñoo wax. ñàkk jox président nag man fu mu doon nii moom mooy comme ci mën a doon comme ci mën a doon nga ñàkk bañ jox cër eh, eh, président Macky Sall moom mooy cër googu moom dindi naa ko per na wala keneen a ci yem mooy que ni yow ay ay ustaas yoo xamante nii fu nekk dem ngeen fa miiras ay xale jirim ngeen jël seen alali bàyyi tëdd ci takk seeni yaay xam nga di xam nga jàng yi ne fi ngeen lekk ay lekk ay addiye ngeen fi nekkee xam nga ci turu diine buñ jógee ngeen tympaniser nit ñi ay président daa war a wax président daa war a wax président daa war a wax lan lay wax wax na ba pare njiitu lu bari wax Macky Sall dafa wax lu leer lu bari wax wax na leen benn yoon ne fekk mi fi nekk président góor jigéen duñ ko fi yéen yéen yéen gëm ngeen gëm seen affaire la ngeen ñàkk gëm seen affaire la dox leen nu mu leen neexee day day yokk wér leen parce que ay mag ngeen da ngeen koy soxla léeg-léeg

taalibe yi ngeen jël jox leen pot jànguñu alxuraan da ngay romb taalibe boo xam ne nga koy xàmme bis bu ne mi ngi nekk ci mbedd bi da koy xàmme bu baax a baax a baax a baax bis bu ne mu yor pot di yalwaa di leen jox ngeen di lekk duufal ay biir di sol ay yére yéen ak seen njaboot booy duñ sol dàll duñ sol yére duñ sol lu baax loolu lañ war a wax réew mi loolu lañ ci war a wax jéem ko fi jëlee mooy yéen diine bi ni ngeen ko jàppee yéen di exploiter diine bi à votre manière yéen yéen yéen yéen ci loolu lañ war a wax mais du président Macky Sall war a def def na ko moderniser kër fexe na ba yow Aliou Sall mu dugal la conseil économique social environnemental defo fa sa liggéey boko fa defon do gën ci mbéd bi di wax Macky Sall fexe na ba tey jii nii maanaam bien makay mu wañi Macky Sall fexe na ba tey jii nii ku am bagu arab dem jangale ji fexe na ba defal leen lepp mais kemu leen satisfaire parce que au fait vous voulez vous aimez trop l'argent facile da ngeen jàpp diina dal kenn ku ne ci yeen dal bu xasse ba jàng laxdar yu jang asma yu ibnu asir do yegg fenn sax commencé nit ñi benn nga nan alhamdullilah gaay yi écran yi tiim la commencé di wax ci lo xam ak lo xamul vous vivez vous vivez vous vivez de la religion mais dundalu leen diine parce que li ngeen nekk diine santu leen ko li leen diine sant mooy ngeen njëkk xeex tawxiid am ci mim réew te tawxiid amu fi wéetal yàlla amu fi bii Sénégal bi donc ñuy sant sant ñi ñu doon seetaan ñëpp di wax ni amana wax ji mën naa am lu ci dëng ñu jàppee ni man la rek maa doon wax man jaam comme ñe duñu amé sañ-sañu rek euh taxaw réclamer ñun tamit amnañu sañ-sañ taxaw euh wax vieux wan ma ngi lay ziar bu baaxa baax il faut avoir il faut avoir peur mon cher parce que réew mom buñ démé ba ñi nga xamné ñom lañu gëna yaakar pour ñu wax diiné buñ né ba ñooñu ñoy dëgg seen tank dëgg duñ ko wax il faut avoir peur xam moy lan moy diiné mom moom la yam cëslaayam mooy li yàlla wax ne sharaa lakum min addiini maa wassa bihi nuuxan wallazi awxaynaa ilayk wa maa wassaynaa bihi muusa wa isa su ma juumulee su ma juumee yàlla yàlla rek a xam an aqimu diina wala tafarraqu yàlla yàlla dafa waxoon ni shara defal nañ leen sharaa sharaa lakum min addiin defal nañ leen seen sharia comme niñ ko defalee woon ñi leen jiitu woon daf ko ko nuux defal ko muusa defal ko isa mooy ngeen taxawal diine wala tafarraqu te bu leen wuute tey ji échec ñoom Aliou Sall ñii taxaw fii di wax maanaam seen objectif détourné wu ci mooy ils ont été incapables de rassembler les musulmans autour d'une même lune ñuy warandoo di warandoo ils sont ils sont incapables neel benn benn ngi noonu ñaareel bi mooy ñëpp toog nañ fi dégg commission croissant lunaire bi problème mu xaalis jotale leen ci mbiru diine. saaba yi loolu loolu nekkuñu ci woon saabatul kiraam ridwaanullah alayhim wa ardaahum maam tey radiyallahu anhum wa ardaahum ñoom li ñu nekkoon mooy diine tout taxawal ko dañ si daan ngi taal sondeel xalifa bu taal sondeel di wax ci mbiru diine maanaam ci mbiru jullit ñi bu ci paree bañ commencé wax seen mbir mu fay sondeel bi jël bosam moom mu taal ko mais commission lañ leen dénk rek ña ngay ki naan kii woo ko lekk ak lekk nañ xaalis bi ak lekk nañ xaalis bi bis bu ne ngeen toog si jàkk yi dégg ne dóor nañ xaalis jàkk ji bis bu ne ngeen dégg bis bu ne ngeen dégg ne non Serigne Ndiaye je suis pas contre la marche je suis pas contre la marche je suis contre la procédure je suis pas contre la marche je suis contre la procédure mooy dañoo jutal mbir yi islam bi jiitu moom mooy ñu xeex ba charia taxaw je suis pas contre la marche encore une fois je suis pas contre la marche je suis pas avec des homosexuels nay leer parce que homosexuel wax naa ci lu leer comme midi mooy atte mooy ñu rey mais comme tamit comme ni attey njaaloo mooy ñu rey te ñee ñu jàkkaarloon tey ñuy marché di xeex koo jigéen ñoo ña si ëpp ñoom ak góor jigéen ñee yem parce que dañoo am jabar di mooy ñii am jëkkër di mooy ñii di séeg jigéen ñii di séeg jigéen ñi seen demukaayu duus ñoom ñëpp a yem kon bu ñuy xeex ñiy bàyyi ñee diine moom yonent bi saa sallam ñëpp la yemale woon xataa doomam nee na bu doomam sàccoo mu dagg loxoom mais oustaz yi nga xamanteni ni seen doom yi ñu leen ci sharia bis bu ne ngeen gis fi doomu oustaz bu def rek lettu ay long lettu ay mesam goor ñi sol lettu ay ay lettu lettu sen bop yi tak ay long long donc man fofu laay waxe donc moy bis bu ne ngeen deg fi jakk bo xamanteni ni Iran Irak jakkay nangam sangam imam baa ngi xag bi imaam baa ngi xuloo xeex ak bilaal bi ci lan jox nañ ñu bëyu maanaam maanaam wàll waru garu waru garu jàkk xaw maanaam bu ñuy mayee jabar sax léegi bu ñuy mayee jabar sax léegi balaa ngay takk sa jabar ci charia da ngay jox da ngay fay jàkk ji imaam bi def ci poosam wala bilaal ba def ci poosam ci feebar boobu lañu war a wax Aliou Sall ci feebar boobu ngeen war a wax yéen feebar bi ngeen war wax mooy taalibe yi ngeen bàyyi ci mbedd mi ñuy yalwaan jànguñu alxuraan doomu jàmm yi ngeen di exploité ñuy yalwaan di leen jox ngeen di lek di reel biir di tak ay jabar ci loolu lañu wara wax liñu wara wax moy nafiq gi ci rewmi bo la waal nag go digeen ni bo les ndialo bi ñakoy def ci jacuzzi yeeg salon de massage ak ci ak ci ak ci ak si auberge ak chambre de passe ñom ñepp a boy wax ci diine mom waxal pour ñepp wala nga nopi go digeen da haram go di ndialo am jabar di ndialo da haram ñak am jabar di ndialo da haram kat dafa haram bokkaal nak mom ñoo nek seen mam wax nga laa riba mais moi, je pense bien que ni yàlla ba mu yónnee yonent ko moy nga ba là sen kaddu nek la ilaha illa allah ma rek ma euh, téléphone. je m'excuse hein je m'excuse un peu voilà daguma direct na damay chargé sur téléphone euh, après je vous reviens quoi voilà eh, eh. voilà donc. Euh, donc voilà voilà donc man fofu la doon waxe moy ñu fexé ba yoonte bi dafa am lo xamni ne négocier ci diiné moy bokalé gis nga yéefar ba ñëwee mak kérok nako bo boo bëggoon weer wi ñu jël ko tek ko so loxo bo bëggoon nek bour ñu def le bour bo bëggoon jigéen ñu jël jigéen ñi gën a rafet ci dëkk dëkk bi di takkala leen ta nga bàyyi ñun ak suñu yàlla yi yéen saa sam dafa leen ne bu ngeen jëloon weer bi teg sama loxo bii jël jant bi teg ko sama loxo bii ngir ma taxawal woote gi may woote wallaay du ma ko def tawhid la muy wéetal borom bi subhanahu wa taala yonent bi loolu doon dëgg xeex wétal yalla tax na ñu génn ko dëkk bi mu dëkkoon ngir wétal yalla subhanahu wa taala ba muy door ma dañ ko ne al alihata ilahan wahida ndax da ngay def yalla yëpp ben yalla inna hadha la shay'un yurad wala inna hadha la shay'un ujab ndax da ngay def yalla yi rek ben yalla kott kott kott kott kott noo yow da ngay font ñu bañ yonent bi wota ñu bañ yonent bi wota ñu bañ yonent bi genn njëkk njëkk leen sax yónni fële ci Kisra ñu dem ñëwaat mooy gàddaay bu njëkk ga dem ñëwaat mu njëkk yónni saaba yi ñu dem ma Madinatul Munawwar ñu génn ko réewam mu jàkkaarloog ñoom depuis Badar xeex ak ñoom Badar xeex ak ñoom Uxud xeex ak ñoom Xandax xeex ak ñoom xude ba sulxul Xudaybiya bi muy négocier ba fatxu Màkka lam doon xeex ak ñoom mooy waqul jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila mooy al xaq mooy yàlla. moy deug deug gi moy yalla moy yalla yalla mom kott la lolou mo taxoon yonent bi dem di xeex ji di xex ak yeferi yi ba keroog muy am ndam yeen stop topp do ci top topp mais yow yaangi nek nekk bo xamni julli ñu duñ julli 50000 mille ci benn koñ benn du fess 50000 mille ci koñ benn du fess nit ñi di faat waxtu yi yonent bi ne kóllëre manam boom bi dox suñu digënté ak yéfer ci moy julli fa man taraka salaa képp ku bàyyi julli nek nga yéfer yow yaa ngi bàyyi julli julli wo wooroo dem di xeex ay góor jigéen bi nek di moy di nek ci ngóor jigéenam di julli mo tane ki nga xamni da koy xeex julli wul il faut qu'on remette les choses à leur place islam bokoy koy xeexal dafa am nu koy xeexalee dafa am ay contexte am ay vérité yo xamanteni du dañ mukk moy ñu xeex xex ba yalla ñu gëm ne yalla la mais dëkk bo xamni ne joxuñ yalla cër buñ jógee di sonal nit yi and ak ay oustad yo xamni ni gëmuñ dara à la fin liñ gëm moy juste luñ def sen poste ak liñu ñu gaay gars yi gis leen ci bitim réew ñoo jox leen xaalis ku ci jog di attaquer président de la République bëggu moon audio bi gudd mais il a il a fallu vraiment qu'on explique énormément de choses il fal fallu vraiment que ñu waxante dëgg ku dégg may wax nag bu mu génne Bah Diakhaté dafa daganal góor jigéen wallaay sori naa ko jullit xàqan wax naa fi waxaat fi ne góor jigéen moom attem mooy rey mais kan moo war a rey kan moo war a rey góor jigéen atteem mooy rey waaye bu nee dañ jàpp góor jigéen njaalookat bu jàpp góor jigéen loolu sa yoon yéen ñaar la ñu war a boole rey donc man foofu laay waxee que ni bu ñu jël atte yi teg ko ci rumeur ak suñuy yeewu rek contre président de la République rek ne xaar ñu def marche wax ci góor jigéen yi li ñu war a njëkk xeex ci mim réew mooy alfiraaru ilallah mooy dellu ci yàlla fa firru ilallah loolu la yàlla wax mooy dellu ci yàlla te ñun nag suñu réew mii ñu wax ko ñeme ko wax ko ñeme ko wax ko ñàkk koo ñeme wax ko mooy fii moom réewum Sénégal bii yàlla amu fi cër wallahi lazim xawma ban ustaas mo am sañ-sañu wax li may wax mais billahi wal kitaabi réew mi ñu nekk nii Sénégal yàlla mu fi cër xeex bi jiitu mooy fexe ba xeex ba sénégalais yi jox cër yàlla subhanahu wa taala gëm nañ ko nag Sénégal gëm nañu yàlla subhanahu wa taala gëm nañ ko mais fondement bi tax ngëm yàlla dëgër amuñu ko mooy tawxiid bu dëgër bi mooy fexe ba xam ne yàlla yàlla la lii yàllaa ko moom lii nit moo ko moom dafa am ci alquran ay bu am solo bu yal di wax nan wa ma tadri nafsin maza taksibu xadan wa ma tadri nafsin bi ayi ardin tamut yal di wax nan yalla mi wax benen ay tamit di wax nit ta xam kagn lay dee fan lay dee ak la lay am suba yalla rek ko xam bu xobu garab di wadd bu nit ki di jang alquran bu nit di sabbal yalla fépp yàlla mu ngi ànd ak ñun wa nahnu aqrabu ilaykum min hablil warid yàlla moo ñu gën a jege suñu buumu xol yi tey réew mi li fi nekk ñu bu ñu ko doon capitaliser si mooy yàlla bu ko doon capitaliser si si si maanaam ay musiba wallaahi duñ tal sax naa dañuy xeex ay góor jigéen li njëkk tal mooy xeex ba julli ji nekk ay jullit bu fekkoon ne tey suñu diine bi suñu ustaas yi échoué wuñu tay war nañu mëna xamni war nañu mëna dajale julli ñi ci ñuy worando di worendo échec la war nañu mëna wo julli jullit ñi ci alcorane bi ñu am ci ben interprétation échec la war nañu wara mëna wo julli ñi ci ñu gëm ni ci ñu gëm ni ngëm-ngëmu islam mo jitu fuf ngëm-ngëm benen senegal di nga gis ndaysan leleg ma nekk ci bële côté nga nekk ci bële côté ñaan ñëpp ñu gëm yàlla kii ne duma may kee sama doom fii la am dégg débat boobu tëgg la duma ko may sama doom géwél la du ko may sama doom uude la du ko may sama doom fan lañ ko jànge inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen mooy gën a ragal yàlla ki gën a tedd ci yéen mooy gën a ragal yàlla nekkul ci xeet ga mu doon parce que xeet boobu yàlla da koo def uniquement li taarafu wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu damay def ay peuple ak ay tribu ngi ngeen xàmmante inna akramakum inda allahi atqaakum mais ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla subhanahu wa a dañu delluwaat suñu xel ci yàlla nañu bàyyi président de la république yàlla da koo jox cër président moo ëpp cër fii instant bi ni yeen ñi doon wax nonu amu leen fi cër yalla moko ko jox yalla mo jox nguur kum ko sop bu óor duni ko jotee moko jini ci ko sop nañ ko japp ne yalla moko ko fi tek ñu nang ko gëm ko and ci lool parce que ko koo gëm kéeféer la donc ñu santane ñep di gërëmaat ñep di jéggelu ci wax ji mu nekké ni dëgër na mais waxu yalla mo mel nonu amana man mi koy wax nag mom jambu bu la beuri bakar bu meuna bakar bàkkaar tanewuma len yeen ñima doon waxal mais deug la doon wax ñu jappé ko deug rek c'est pas parce que dama singali Aliou Sall wala demee na mais parce que mo def ko nak lu def waxu du yaay di jambat donc ñi sante tous les euh, ñepp ñi nga xamanteni ñi nga wara sante sama page tay di wat bu baaxa baax di sante président de la république Macky Sall diko sante diko gëreum di ñaan yàlla mo xam fu mu jëm yàlla nako ko yàlla yegal fofu pexe nak mom wa iz yamkuru bika alladhina kafaru kala ba gaay di pexé yonent bi saa sallam ngir genné ko wala ray ko wala xex ko wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu khairul makirin dañuy fexe rek yàlla di fexe yàlla daak fexe kuy fexe donc Cheikh Tidiane Diop euh man mom mënoma rek régler Eh, da ngay indi li ma wax rek nga indi jema indi lu ko dindi li may wax ni Aliou Sall sa bu togon ci écran télé ni tok ma tok ma wax ko kon yow da ngay cee te tu heures un élément minime par rapport ak li may wax eh, gis nga xeetu yi ngeen def ni yéen yéen boy yi ni xoma boy Pastef ngeen xom lu ngeen doon da ngay koy wax ñeneen xam nga man mom do ma moromu xale voilà man boy ma ci wax lo mo warta wax mom fima dajay wax xamna wax ko voilà ñun ñepp gi lañ deug xamantani on se connaît très bien voilà donc loolu la amoon lu may wax di santaat ñëpp di gërëmaan ñëpp di jégaluwaat vraiment bu fekkee ni vidéo bi gudd na wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jaa ngeen jëf.